koor waxtaanu koor ci yoor yooru koor ñu ciy ziar bu baax di jëkkëbe nekk ca Torino ak Dame ñu ay promoteur ñooñu dañu sopp Abou Bilal ba fas yéene ko sargal le 26 incha allah foofu ca Torino ñu ciy nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Senghor Louis Senghor moom tamit nee na alaaj Abou Bilal le 26 ca Torino te porte plaza danañ ma fa décorer ndeysaan gis nga taalibe ay xew-xew yu mag yoo xam ne dañ fa war a décorer El Hadj Abou Bilal ñii ñoom. caaxaanuñu nee nañu daal ca télévision ya diaspora ba bépp télé xam ne yaa ngi génn Afrique nee nañ jëmm El Hadji Bilal bi bu taxawee ci télé bi ñoom ñëppay jom ni ñëppay toog kon moo tax ñu war ko fas yéene delloo njëkkal muy DJ Kébé ca Torino ak Dame promoteur ay taalibe El Hadji Bilal le 26 incha allah di ci nuyu tamit Louis Senghor production nekk foofu ak association Nanor nekk ca Torino di nuyu madame Mbacke Khalifal bu baax Louis Senghor boobu xam ne moom tamit nee na dana décorer El Hadji Bilal ñooñu ay taalibi El Hadj Abou Bilal nañu ñu ci nuyu Maguette Lo Bodian di nuy tamit madame Bodian nekk foofu ca DAGE bu ministère du tourisme Mame Boussaloo nuyu nañ ko Khady tijan Bodian Abdoulaye Bodian directeur SOS village bu Tambacounda suñu xarit la Mbène loo nekk ca Louga Kelli Sall ca Louga Babacar Sall ca Louga Ahmed Sall Ndeye Marème Sall Ndeye Ndiaye nekk ca Tamba ñoom ñëpp nuyu leen di nuyu tamit Mohamed Bodian doomu madame Bodian nekk ca ah, ministère du tourisme Youssou Ndour numéro 2 Kaffrine et le super Ndoukoumane moom nee na bëgg nañu bébé Moustapha Fall Tilala surtout Tilala Fall la war mu nekk turandoom nekk ca Medina ñetti at la waaye xale bi élage bu bilaa la bëgg ñuy nuyu Marie Gomis nekk ca Kaznak yaayu Dabu Touré chéri Assane Diop le grand Saloum Saloum Assane Diop nit ku yàlla baaxal la waxtaanu koor ci yor yoru koor ku ne ci ligne bi allo allo waaw asalaamaaleykum Abou Bilal waaw maaleykum salaam ah sa benn taalibe. waaw koo kan la. waaw sa benn taalibe rek bu nekk fu xaw a sori tuuti rek. dama la doon woo di la ziar. waaw di la ñaanal jàmm di la ko yéene. di ñaan yàlla yokk la. amiin waay yokk liggéey bi macha allah dañu kontaan ci yow. waaw kooku du Ousmane Mbaye Beuz. waaw ba tey bu la neexee mën naa nekk. waa mën na sax mais sama sëriñ man damaa kontaan ci yow et puis yàlla yokk la. jërëjëf ndax yow kaf nit ñi rek moo tax a jóg. jërëjëf Beuz. nag am naa laaj bu lay laaj. waaw. waaw man dama la dégg semaine passée nga bi nga ñëwee Paris da doon woor. waaw maa ngi doon woor mais man li ma jaaxal yow dañoo ànd ci boulevard Barbès nga dugg ci sandwich grec bi naan sa boisson. ñu demal ci kër njaago yi di def tournage nga lekkati man laaj la lu tax wóoroo nga ne ma alxatami moo la digal ne la boo tukkee koor wàcc na la léegi nag may laaj kilifa bu toll na yow ak ni nga bëree taalibe est-ce que rafet na nga toog ci digg tale bi di nampal ak akuse accouché rafet na ngay nampal nga baal ma nag sa sëriñ kenn du ko wax sax da ngay est-ce que loolu rafet na ma ne ma ne ma waaw Ousmane Mbaye Beuz yaa ngi may dégg maa lay dégg man de bett nga ma waaw fa ma a ah, tegoon de teggi naa la fa. waa ah, déet waay. waaw parce que yow. bu fekkee ne dañoo def. waaw ci sutura te li nga wax dëgg la. ànd nañu ma ak yow. xiif dal ma ma xool sama montre muy 19h. man la de man wax dëgg yàlla senegal laa xëddee. kon fii laay dogee. nga yëkkati sax xaalis daal ma ne yaa ko jënd. la ma dogee yaa ko jënd. Ah, waaw nampal mooy lan nampal mooy lan ñun suñu sëriñ nga ma ne eh waroo ko wax doon woor loolu moom li nga doon digal nit ñi naan dañuy wari yow yaakaar naa oustaz war ngaa mën a wari nga baal ma rek nga baal ma rek yow nag non Ousmane yow Mbaye Bés yow bett nga ma trop ndax foogoon naa ne li ñuy ànd yëpp ci sutura nga koy def waaye nga wa wulli sama sutura ci télé bi nii ma lay xamal dara bés ni tey jàpp naa ne wari nga ak ku la xam ak ku déglu mosu salañ salañ ba war a clip bi ku ko teg ci fii ak ñaari ak wari nga ku am mosu salañ salañ si sa portable effacé ko ku dégg mosu salañ salañ dawal ndax fecc kat kooku nga xam ne moo ci dugg fecc ci di xarit ci Youssou Ndour boobu weer gi ma weer toroxal ma maa ngi ciy woo témoin Birane Ndour bi nga xam ne ñoo andoon man Birane mun na maa témoin man dama woor ba mu fay jógee lekku ma naanu ma ci fula laa jóg bi ma fiy jógee Sénégal 5 heures du matin fa heure 19 heures jot su ma neexee dog parce que wooruma ak ñoom xëdduma ak ñoom kon waruma weer. waaw man nag moom maa ngi soog xam nag waaye demal rek àdduna suñu kanam bu dee loo leen xam wax ko nit ko rek di boole nee naa leen boole métier jàmbur la journaliste say boole waaye li mu def nii boole la waxtaanu koor ci yor koor tontoo mag diggante ki nga xam ne mooy alxatami alxatami daa day jàpp dënnam ba téye gémmin nga na ma Abu Bilal ma naa mu ma wasiima kalkala wa kalkale yàlla yàlla nan ma ñaar ñii de ku ci dugg seen diggante des si est ce lu ñu war a def ma daal di koy làkk ci arab ne ko alxatami mu na naam ma ne ko balal wazan xarman karka wa kaanal kasiman wanakal tarikal zuuzi zaazu wunika waanaka tëlkal tiri <laughs> ma ne ko ñoo bokku ndey bokk ñu bàyyi ñoo bokk jikko bokk lu ñu gëm nañ ci teey ànd ceeg teey te ànd ceeg dal mooy tax ñu mën a am résultat loolu laa ko wax ci arab <laughs> su ko defee waxtaanu koor ci yor-yoru koor ñu dellu di ziar ay taalibe ku ci mel na Xaadim Mbay ñu naan ko tàng jër nekk ci Italie ñu naan ko l'italien noir ak Cerno Mbay le noble nekk ci Italie di booy golf di daan doolem xëy liggéey gont nee na ma El Hadj Abou Bilal bëgg nañu doon jawriñ toogal la foofu ci Italie ku ci mel na Cerno Mbay Xaadim Mbay tàng jër di ci nuyu tamit suñu benn taalibe bu ñu naan Axma Bey xaritu Xaadim Mbay la nekk ca fii ci Dakar waree xale yaa nga ca Sardaña Ndey Xaadim Mbuub ñaan ko Alliance Jolie Mbuub ña nga ca Montréal nañ ko Abdou Mbacke commerçant ca Sandaga moom tamit daanu la leer waxtaanu koor ci yoor yooru koor alxatami am na ku ne ci ligne alo allo allo salaam waaw El Hadj Abou Bilal na nga def waaw waaw man la sa benn taalibe. ah kan la ci taalibe yi. ah man lañ doon maye temps yi avant ñuy woor. yow lañ doon maye avant ñuy woor. waaw yaa ma ñaanaloon de ni ma na nga gaaw am jëkkër après ñu maye ma avant koor gi. ah. Eh, wax nga dëgg ci mariage bi. wax nga dëgg wax nga dëgg. kooku du du Yacine. waaw Yacine Yacine Caaro yi. waaw naka sëy bi. waa ñu ngi ci kawam di góorgóorlu. ah ana sa borom kër mbaa mu ngi lay toppatoo. waaw mi ngi lay toppatoo baax mais alaaji waaw. bi ñu may toppatoo wax dëgg yàlla sama dara manqué woon la mu ma dara. waaw waaye ci xaw a jaaxal. lan moo la ci jaaxal Yacine. Euh, waaw. ma jànk instant bii nii sama jànk dafa arrêté. amoo jànk fan waaw ma jànk lépp man maa koy def ci kër eh, sa téléphone bi Yacine. waaw waa kay ñu ngi lay soog a dégg nga ne. waaw man instant bii nii maa ngi nii nekk sama kër man maa waaw. mais sama jëkkër daal vraiment su ma mënoon euh, wàññi euh, boobu daal ma ma sa jëkkër. ndax man damay woor ba ngoon jot. waaw. fii ndogoo rek mënuma damay tëdd léegi. Ah, sa jëkkër daal da ngay woor ba ngoon jot. boo ndogee rek mu ne kaa la ñuy tëdd. presque daal moom man lay ndogoo man di xëddee ah, yow lay ndogoo yow lay xëddee. Ah, bu bees nga kat. waaw seet bu da nga bëggoon laaj léegi. waaw dama bëggoon laaj ndax coono boobu ak koor gi ah, te man damay woor. ah te moom <laughs> te moom daal bu la oqee nga fuy nga wuy si ko. ah nu may amoo jànq yaa xëy di liggéey di xëy di wàcc di bale di raxas di togg ndogu. di togg ndogu di tàcc te fu ndog jotee mu na la kañ tëddi. kañ ngeen di yeewu. ñun tey euh, dañuy ah kon moom noppalu cër yi ma ne kon moom du noppal cëram yi. moom daal noppalu bu ko defoon dina mën a. yow tamit nangul nga ko loolu. ah ko ko ah, kon de léegi nga dee bu dee loo yenu mu reesal ko loo lekk mu reesal ko te du noppal cër yi léegi nga dee yow da ngay xëddandoog moom warandoog moom ba pare mu wori. naan lu neex lekk lu duuf yow la nga lekk kon mu daal di koy reesal kon kay kii noppalul ci ni rey na la léegi nga dee de <laughs> seet bu bees léegi mu dee de moo taxit wax naa leen ko fi sànq dafa mel ne lu may yéeg sama yaram noppal leen yi ci koor gi ay waay noppal leen cëri ci koor yi bàyyi leen ñu jëlaat vitamine tuuti ba koor gi jeex ngeen jëlaat vitamine yi ngir yàlla weeru yàlla rek neex naa mun ay waay ngir yàlla noppal leen cër yi ay dimbali leen xale yi jigéen ñi ñu noppaliku mu warandoog yow nga warandoog moom mu muñ ndox nga muñ ndox mu muñ ataaya nga muñ ataaya nga teg ndogu raxas sa loxo mu teg ndogu raxas sa loxo nga wan na mu wan na waaye boo dee gor tëddal nelaw bàyyi ko mu nelaw waaye boo ko oqee la mu lekkoon nga reesal ko <laughs> noppaloo ay cëram ba pare di nampaloo waxtaanu koor ci yor yoru koor dama ne waxtaanu koor ci yor yoru koor su ko defee tonton mag damay nuyu samay xarit tata Khady Sarr ñu naan ko madame Niass nekk ca palais Ahmed Khalifa Niass ba waaye Ami Niass nekk ca Dubaï actuellement en vacances fii ci Sénégal sama xarit la Maymouna Ba ñu naan ko madame Hot nekk ca Dubaï ma ngay daanu leer Fatoumata Diallo chéri Babacar ñu koy nuyu madame Dieng ca Liberté 6 waaye excellente écoute à Ami Niass nekk ca Dubaï actuellement en vacances fii ci Sénégal su samay taalibe nekk jigéen soxlul xam naa ñu ngi koy ruumanaanaat ci biir naan ku caa ñi muy tudd rek ay jigéen nañu Cissé monsieur Cissé chef de vente yaawur njaboot sama taalibe la joyeux anniversaire à Nene Seck doomu Kuma Ndiaye ca Cincinnati Ohio Awalaay Ndiaye Derklé Ibadou la bu rafet waaye Rugi Sall couturière ca Ouest Foire sama taalibe la na Seynabou Fall ak Mbaye Thiam ay journalistes yu nekk journal populaire keroog dañ maa bindal ci journal populaire ne man sem de la bàyyee kon ki nga xam ne mooy Seynabou Fall ak mbay ca am nañu rectifié article boobu man bàyyiwuma sem 2 dangay naa ba sem 2 génn def école Fouta Toro jóge Fouta Toro jaar Madiaye Sall jóge Madiaye Sall dem Blaise Diagne jóge Blaise Diagne dem Assafin falaa finwee yooyu yëpp maa ko jàng dem naa ba classe terminal Tyson bokk nañ classe en classe de troisième secondaire kon nag bu ñu ko jaawalee bu leen fàtte ne oustaz bi intellectuel la jàng na te Tyson yàgg naa xool ay bët ci man bu ñu musaan bind daan na cerka xool mu ne ko xoolal mu xool mu ne ko bindal jàll kon waxtaanu koor ci yor yooru koor Seynabou Fall bi ak Mbaye Thiam nekk ca journal populaire journal ba wari nañu directeur publication ba wari na ka moom journal ba wari na ku leen xam ak ku leen yëg seen mbokk seen xarit seen dëkkandoo ñoom ñëpp wari ñu ndax bind nañ loo xam ne amul di nuyu bu baax nday ñang yaayu dadaa jaam dadaa jaam suñu xarit la su ko defee tonton mag alxatami bi mu jàppee gémmiñ gi ba dar ko daa damay làkk ci arab na ma ñii nan laay mën a def ba génn seen xuloo bi te bañ cee feeñ ma ne ko xam nga nu ñuy def papa boo gisee ndeysaan alxatami daf ma jàppee woon kon doomam na ma xam nga nu ñuy def papa mu ne ma waa lu ñuy def mu ne ko nañ leen delloo ñoom ñaar ñu juboo ñun ñu continuer suñu yoon demal suñu bopp loolu mooy yoon fa ñuy waxee loolu rek ndekete batar batar batar batar batar batar batar bataray kàccoor batar batar mooy wuyu batar bataray saay-saay batar batar ndekete jël na benn benn weñ buy naaw daa da koy ko weñ mun a naaw mun na ko fexel ba dugg ci nopp ki nga xam ne mooy alxatami daa da koy tëxloo ëlbati bopp ba dadu xaamante kucca ak bar ak batar buut boobu batar buut ma nga ca wanaga aka bëggoon douze batar buut ma woon ca wanaga ñun ñoo jékki-jékki alxatami yuuxu ne allah altarik ma ne ko lan la mu ne ma sama nopp bi am na lu ci dugg ma fëgg nopp bi ndekete weñ baa ngay dugg ca biir yóor ba di commencé coqotaan yóor gi am na ku ne ci ligne bi allo allo nga ne waaw kuc ça bi jox ma cër te jox ma respect man oustaz la abu bilaa nañ may wooye bu ñu waxati kuuc du ma sa morom ah, ok non xam nga rek fréquentation bi la quoi xam nga koo kan la ah, la Bachir ah Bachir Bachir. Eh! booy Bachir. ah booy na nga def. na nga def ah booy yow tamit nee na ma de de wax de ma monsieur Sine kay moo gën. waaw xam nga rek minante bi la quoi. waaw ma ne. waaw sama ordinateur fu mu toll. waaw moom laa doon doyee maa ngi ni buntu TFM pare na de. waaw mais nga doon dugg ci émission bi. xanaa gars yi dañuy jum waaw la woon. waaw pare naa ah, am lii bi ordinateur bi. nga lépp. waaw defar naa lépp. ah. waaw instant bi installé naa Facebook beeg ak lan lépp dóor waaw mais euh, nu mu tudd mooy affaire mooy film film yi ah. film yan. Euh, mooy yooyu ah film yonent bi. <laughs> non non oui ma yan film yonent bi xamoon film yonent bi de. film yan. Euh, bul xool yi. nga film bul xool ah non ma ne. waaw les de Dieu def nga ko. non non film bul xool yi ci partie D bi. l'islam et l'étranger. na déedéet defuma ci yooyu bul xool yi ma waxoon laa ci def. bul xool yan. bul xool yi xanaa benn 1000 francs la nag bul xool laa ci defaral. allo. ma kuc maa ci buntu bi yow laa xaar bu xool douze la ah léegi douze nga may jox nga génn waale ko. ma ne. waaw. xam euh, euh, euh, ma ne. waaw man maa ko tu ma ne. waaw. yow yaa ku ñàkk kersa nga. ah yow dama ne sama numéro téléphone laa la jox xanaa da nga woo jot boîte vocale kii mooy Badolo sama téléphone a réer. depuis sama tey maa koy seet xam nga ne kii dafa jaawale lii ñii waaye tontom ak lii sa erreur la parce que nit bu ñu tere ku caalaa soxla bul ko dugal en direct kii portable ordinateur laa ko joxoon war moo ko defal bul xool yooyu muy wax wóor na yàlla samay taalibe bi lay walaay waaye tontom ak may ma kii waaye ma ree waaye <laughs>